mbooloo mi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllum pièces détachées automobile nekk ci dëkk bi nga xam ne moo di Touba ak Mbacké ñoo ñëw ci waatu Touba ca kanam ci njiitalul Serigne bu Mbacké moom Serigne fàllu ñu yëkkati seen addiya ñu xayma ko ci un million de francs CFA jébbal ko waa Touba ca kanam ngir fa yéene jàpp ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy amal ci dëkk bu sell bi di Touba. asalaamaaleykum wa rahmatullah. Eh, ginnaaw bi ñu sante yàlla suñu borom subhanahu wa taala di junni ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaanal yàlla suñu borom si Muntaxa Basiru mi yàlla suñu borom guddalu fanam wéralu cëram ba liggéey bi ñu bëgg a sumb bëgg koo liggéeyal sëñ Touba yàlla suñu borom may leen jot ak kàttan akuk taal akuk wér ànd koog suñu ab yu bokk mbokk taalibe bi yëpp yàlla defal ñu ci tawféex ak taysiir Sanga Yaaram Mbàkke ñu ngi ñëw di la ziar ñun waa mbokk ahlul automobile su ma limee juum waaye su ma nee képp kuy yëngu ci ahlul automobile pièces détachées rek ñëpp ngi ci biir liggéey bi nag sa nga yaaram ñu toogoon fan yee gis ni ngeen di doxale ci dëkk bi sedd suñu xol lool ndax man avant Thierno di def lii keroog tey xëy toog sama sama place toog toog toog di xool liggéey bi ngeen liggéey sama xol di ci gën a sedd lool ndax maa ngi nekk euh, dëkk bu naan Avignon di bokkit ci ña nga xam ne ñoo nekk ci Marseille euh, te sëñ Murit Ndaw nekk yor ko fa léeg-léegi ñu ngi jokkoo ci ci bëri ma toog toog daal far yàlla suñu borom la may mébét ba am nu ma def ci sama compte orange money maam Thierno woo ma ne ma sëñ Diop man xam mu ne ma danaa woo woo alaaji kat mi am nu mu ko wax daan may yónnee message ne ma nag faw ñu taxaw ci man ko ab ah, bisimilaay loolu dana sedd xol ndax man de kon xam naa ne sama soññee ba ma doon def yàlla suñu borom gën na maa dolli tawfiix ndax ab beneen soññee ngi nii kon nag acca bisimilaay ñu daal di toog yëngatu daal di yëngal murit ab murit nag ñun amuñ lu dëkk bi amuñ lu dul seen Tuubaa ak bii kon nag képp ku ñu gis ngay liggéey comme nii ngeen koy doxalee Mbàkke nga xam ne amul jënn yitti lu lu jëmale dëkk bi kanam ñun de ñu ngi ci biir ñun waa ëhlul automobile moo taxoon ñu dajale lañ am néew bëri ñëw Mbàkke fii di la ko jébbal di sàkku ñaan te di la ñaanal gannaaw bi la ñaanalee ba noppi yàlla suñu borom may leen wér ak kàttan ak cëral leen ñuy ñaan ngeen delloo ngeen ñaanal ñu ñu yàlla suñu borom may ñu kàttan ak ubbiku goo xamante ni liggéey bu fi waay mën a sombati ci songati ci dëkk bi rek ñun waa automobile ñu man koo ànd ak yéen bokk ci liggéey bi lettre bi nga xamante ni daal moo àndoon nag liggéey bi mi ngi noonu euh, diggante bu gàtt nag jéem nañ ba fexe ci daal ne comme social bi moom xam naa ne dana Touba ci kanam foo ko fekk ci social lay dox te lim ciy doxit dana gaaw lool ñu ne jërul ñu fii nekk di yaatal nañ def tàmbali ak tàmbali goo xam ni dañuy tàmbali rek mbàkke bëgg ngeen ñaanal mu dem ba heure bi déen bi ñu fi ñëwee mu doon milliard ñu yëkkati woon million bëggoon ko barkeloo ci liggéey bi ah Mbàkke di sàkku ci yéen ñaan yéen ñëpp ngeen ñaanoon ni bu ne heure bi déen bu ñu fi toogaatee yàlla na doon milliard lu teg wala lu wala lu ko ëpp bisimilah Mbàkke kon nag Mbàkke lool de moo nekkoon suñuy suñuy tànk ak suñuy yitte ak suñuy yéene jëf ji nga xam ne kuréel bii di yëngatu ci wàllum pièces détachées automobile fii ci Touba ak Mbacké def nañ ko te jébbal ko waa Touba ca kanam nekk na lool jëwriñ yi nga xam ne ñoo jiite liggéeyub Touba ca kanam rafetlu nañ ko lool ci kàddu yi nga xam ne seen jëwriñ yi yëkkati nañ ko ci ndaje mi. yëkkati kàddu ci tudd Serigne Abibou Mbacké mi nga xam ne mooy jëwriñu Touba ca kanam ak mboolem waa Touba ca kanam fu ñu fi mën a nekk te loolu buñ ko waxee nuyoo boobu dana leen yóbbaale yéen ñi nga xam ne yéenay waa ahlu ahlu automobile pièce détachée ndax naka jekk fa murit mën a nekk rek membre nga ci Touba ca kanam kon day nekk nuyoo boo xam ne dañ leen koy jox waaye yéen da ngeen di bokk ci ñi joxe nuyoo bi ndax ci Touba ca kanam ngeen bokk noo ngi leen di sant bu baax di leen siyaare kon di sant yàlla bu baax a baax di sant Serigne Touba ti jëf ju rëy ju tedd ji nga xam ne def ngeen ko te mooy jóg dajale ak barkeelu wala addiya tàmbalee ko seenu dugg ci Touba ca kanam Eh, ni ma ko waxee léegi murit boo seen jàpp naa ne membre la ci Touba kanam mën naa am nag wet gëm féete da cay doxeek boppam doon membre boppam waaye bu ngeen wëlbatikoo nag ci seen mbooloo ngeen àndandoo dajale fas yéene tàmbalee ànd jàpp ci Touba ca kanam loolu day doon beneen bunt beneen jéego boo xam ne bu nopp la lay doon ndax Touba ca kanam ab liggéeyam dafa yaatu jëm ci wàll lu ñuy wax massification te mooy fexe ba fu ab taalibe mën a nekk fu ab mën a nekk liggéey bi àgg ci yow ba nga yëg ko ba xam na muy doxe ba dugal ci sa loxo boo amee nag ñu la wuute ca wet googa di ko def dañ lay gën a noppal te lii ngeen def wuutu ngeen ñi yor wàllu massification ci wet googu ndax waroon nañoo sol seenu daal ñëw ba ci ñi regroupé wu ci euh, pièces détachées ñëpp ñu waxtaan ak ñoom dajale leen fexe leen a tàbbal ci liggéey bi kon bu ngeen ko defee jiitu ngeen ca loolu danañ leen ci sant bu baax a baax euh, ñaanal leen ci te rafetlu ko la ca toppit mooy liggéey bi noo ko bokk ndax Touba ca kanam tuubaa lay lay bëgg dugal loxoom daa bëgg dugal loxoom ci jëm ak Touba ca kanam euh, donte moom Touba faw rek day jëm ca kanam waaye kenn ku nekk ci ñun sa yéenee mooy ñaanuk sëriñ bi nga fexeeru noo pastee fo ba tàbbi ca biir loolu mooy sababu Touba ca kanam kon euh, ba euh, wet googu bu ngeen ci ñëwee ak taw tawféex lay doon akuk cant tey nag nu maasee xam ne dëkk bi ñun ñëpp ku ci nekk ci ñun boo fiy dox dangay ngay seetlu naan nangam waroon na fee am nangam li waru fee am ñun ñëpp ndax bëgg bëgg dëkk bi te loolu yëpp nag kenn ku nekk ci ñoon rek boo beroo doo ko man waaye bu ñu booloo tënku ca njàngaleem sëriñ ba rek def ko dañuy yomb loolu mooy sabab Touba ca kanam judd gi mu judd noo ngi sant kon bu baax a baax di leen jaajëfal di leen wax ne Touba ca kanam a ngi nii doon kuréel goo xam ne ci transparence lay dox ci laaj lu ñu man di ko def fu nu xam ca lay dox ci euh, di xool di dàkk bëggug sëriñ bi la mu jàngale la mu bind ca Matlabul Fawzayni ñu jëm caa tënku ci la ñuy dox waaye kuréel la goo xam ne tamit ci ndigalul Serigne Mountakha ci lay dox kuréel la goo xam ne ci kilifteefug Serigne Abibou mii ci lay dox ak jëwriñam Serigne Abdoulaye moom Serigne Abibou noonu dongay nag nu takkatoo rek di sàkku ngërëmal Serigne bi ànd ko ak ñoom muy liggéey boo xam ne liggéeyu jaayante la euh, liggéeyu pas-pas la waaye nag di jéem a fexe ba fu ab murit mën a nekk boo ci tàbbalee sa benn dërëm ñu saytu ko toppatoo ko bala taxoon nga di ko joxe mu àgg ca te mooy fexe di leeral te di ko teg ci yoon loolu mooy sabab bi kon noo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaanal mbokk yi nga xam ne ñoo féete bitim réew ak mbokk yi nga xam ne ñoo ne ci réew mi fu waaye mën a nekk rek eh, musiba bii nga xam ne suñu borom wàccee ne ko ci àdduna bi te muy taw feex ak ndimbal ndax yàlla inna ma'al usri yusran maanaam mbir lu muy nuru ab jafe-jafe suñu borom dana ci roof ak jàpp ndal roof ca taw feex joo xam ne mën naa sax faf doon loo xam ne da nga ngay dem ba ci biir nga ne nga ne woon géejoo mu bañ a am mu bañ a ñàkk am kon noon ngi ciy sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla mu teggil ko àdduna bi teggil ko mbokk yooyu sëñ Thierno Kam mi nga xam ne mooy seen jëwrin ak mbooleem ñamu àndal ba li nu bëgg lépp nu maasee ko am te mooy am ngërëmal sëriñ bi kon li sëñ bi wax ñu yokk ko ci rek mooy fi mu ne dañoo toll ci jamono yi eh, jamono yi dimbalante te mooy social toll ci jamono joo xam ne te sëñ Mountakha loolu da ko santaane eh, ba tàyyi ci wet yu ne ne nañ jàppalante rawatina bi mbas mi suñu borom dogal mu wàcc yàlla dogal nag tey mu woo woon sëñ Abibu bi mu ko wooyee sëñ Abibu woonu nu ànd dem fa ci moom biñ demee fekk ne booba moom dafa amoon yéene ci yëkkati eh, alalam jox Touba kanam ngir ñu saytul ko kër yi nga xam ne dañ leen a ci dëkk bi eh, nga xam ne kër yi nga xam ne wopp dafa dugg bañ tëj leen amatuñu sañ-sañu mën a génn ci biir lool nag sëñ Abibu xamal ko ne loolu moom nun la ñuy def mooy dañ koy jël en charge te barkeeloo ko maanaam teggil la ko yow ñun ko mu sant ci lool Euh, euh, euh, dolli ci lam daan sant ci Touba kanam ndax moom li muy faral di wax ci Touba kanam mooy kuréel la goo xam ne moom amatu ci yaakaar yàqin la ci am te wóor na ko ne lépp loo xam ne lu war ci dëkk bi ci xilaafa gi wala war ci war sax ci ci gouvernement bi Touba ca kanam dana dem ba di ko def loolu li mu koy wax bari na mu dolliwaat ko ca cantam yooyee kon yéen sëñ bi nee na fekk ngeen tawféex jooju mu ne fi nga xam ne ci la ñuy doog jóge nii di doog joge ci sëñ bi sëñ bi joxe ndigal ne kër yi nga xam ne dafaa dugg ba ñu quarantaine leen la aju ca seen dund nañ ko yor ndigal loolee nga kon seen liggéey bi da ci daal di tàbbi directement moom bu defee mu nekk loo xam ne mu baasaratan lay doon jërë ngeen jëf. kenn dañ koy gur suñu bam yàlla nañ fay boppam waaw nii million nii dërëm yi toll ci million daal ñaan naa ci bakk Sëriñ ko yokk ci wërsëgam yokk ci ak wéram yokk ci parce que diggam ba ndax murid moom am rek ku jik waaw ñaan suñu borom subhaanahu wa dimbal leen rek seen ànd bi yàlla bi si yoon yàlla ngeen bokk ci ñi sëñ bi ñaan na adxal nafsi wa jami ahli fi jabi si fadli yàlla na yàlla dugal na ñaan ci tim sa borom jaaral leen fa mu ñaanoon mu ne ko euh, yaa bi xarit mu di maan fi xes ni galance yi mosam a maa jëlal ñëpp nga dugal sa tafek yi bu kenn gën jëm fenn te dugal ngeen ci waaye yàlla na ko suñu doog a nangu waaw yàlla nañu suñu toog def ñu doon dëgg dëgg taalibe tam nangu ñu suñu jëf te jëf ji yàlla bu ci yàqu am yàlla bu ci nekk ci kon ñu ngi sant baax di leen kenn ku ne yaa xam la si yéen Sëriñ Tuubaa daal yàlla nga ko mottali waaw te yéen Sëriñ Tuubaa tamit yàlla yàlla yàlla nii mu xam bëgg na dëkk mel ni daal eh, yàlla nañ bokk ñu ko ko jëmale te moom ni mu bëgg dana ko am moom waaw ndax dafa ko ba nappi ndax ba muy tax ba muy tabax ba muy sëñ Tuubaa di wax na yàlla tabax na ma sama jumaa ji boobu ay ay ay làkk ngeer ci nekkoon mun a indi matti ayatu ribi xattama nu ci mahal binaay mahal binaay boo aw xeet sax uñu si naan mën a tax baa ngi nii euh, ku kenn mënu koon gëm boobu waaye teyam gina moo gàcceel démb moom kon yàlla ñu bokk ñu jëm ci rek kuréel gii nga xam ne nag dañuy yëngatu ci wàllum pièces détachées fa yéene wu ñoo yem ci jëf ji rek dañoo fas yéene lépp loo xam ne ñu ngi koy def ci dëkk bi te mu bàyyeekoo ci sëriñ bi ñu tàbbal ci seen loxo